RTV Dakar yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw bu leen fàtte bés cloche notification bi ndax mooy tax ngeen di jët sunuy vidéo jàngeen jëf te ñoom ñoo dabaatal yëf yi ñu saaga Ibnu Duray parce que moo def kitaabul Jamhara gabatar بجلس من السادة أبو منصور الأزهري بس كمدب تهذيب اللغة بجلس من السادة خارزنجي تمدب كتاب التكملة تجي يبور dimbalé l'islam ñu dabatal la lak waaye gis nga li leen ci fekk ay saga leen ci fekk ki wax ni ibnu durayd dureydin baqara ne nak la rek wa fihi uzbun wa sharar ويدعي بجهله وضع كتاب الجمارة وهو كتاب العين إلا أنه قد غير كني الأزهري وضغ وهمقه حمق دغة ويدعي بجهله كتاب تهذيب اللغة وهو كتاب العين إلا أنه قد ثبر في الخارزنجي بلى وفيه حمق وولى ويدعي بجهله وقع كتاب التكمله وهو كتاب العين إلا أنه قد نقله مي مام لم وقف متغو بات كان يامي بنيو دفل وان لي الأثري وزغة الوزغة ميومك برم دق دق ndeysaan moo ab rof du turam dëgg-dëgg daf ko melal waaye turam dëgg-dëgg mooy alwasaxa ñu naan ñim woo ñam waa um, euh, sawu unk ci dem te fekk na unk ci mbindeef yi dul saw la bokk ma wax leen الأزهري ولغة وحمقه حمق دغة دغة تريجين له waaw بنت bintu Maxnaz أحمق benn jigéen la bu naan kaani boobu arab gi wax diw dafa dof def nan moo gën a dof bin euh, euh, duxatu bintu maanas ñuur euh, gi dafa rëccoon waaye terewul ko bëggoon liggéey la ba tey mi ngi am ci ci ci dëkk yi daawul noppalu suba ba ngoon nanguwul kër gi tilim nanguwul ndab yi tilim nanguwul euh, dara tilim mi ngi fóotu noppalu boo ko teree mu lànk ma ngay liggéeyu waaye itam la tabarkalla tabarkalla bu dee leket bala ca am fukki fan toj ko def dul bàyyi bu seetee du tax mu bàyyi ba ñu ni waaw luñ koy fajee ñu ni nañ ko may diw ñu tudd benn mbokkam boo xam ni moom it bopp ba dafa rek lewul ñu may ko ko mu ëmb nag waaye terewul mu continuer liggéeyam bu mu demee bay matu mu defee ni dafa saf kabine daw wuti gannaaw dëkk ba ba mu demee mu mucc fa ñu romb ko fa yenu ko indi muy xàqataay di xàqataay di xàqataay ba kalme ñu ni ko loolu mu ni dem àll ba buy jooy tey laa ko jëkk a gis هذا يجد جد لي بخير خليفة جد لي به وبعلمه وبرشده أو طيبه لا يعرف الثقلان أولى منه بالإكرام أو بالجهد في ترحيبه قيم تساعد منه تتساعد قيم تساعد منه حتى حولت مثرا يصوب الخير من شؤبوبه عاشت خوارقه وعاش صلاحه فتوازن الاشياء من تركيبه في قومه وسلم البساط شبابه في شيبه أدوا شهادتهم أمام صوراتهم فتعجبوا من حظه ونصيبه حتى وفي الأطفال منهم مآثر عرفوا بنور فيه قبل حليبه فتفتقت أزهار الروح حبه في أعين الطلاب كي تزهو به تتوارد الأفراد في أكنافه شغفا به وبما بدا لرقيبه يختار كل جماعة ميقاته ليرد عنها الشر باسم حسيبه حكم يرى أن الحضارة لم تكن إلا لإسعاد امرئ وقريبه الله فكل حضارة مشومة يسقى بها الإنسان رغم مجيبه لم يلتفت لكوارث وحوادث لقي الزمان ولم يفه بعيوبه قد أنقذ العلماء من قلق بهم ما الغم يرغب في لقاء حبيبه وكذا التفاؤل بالرضا درس له ومبادئ التكوين من ترتيبه حتى غدا الشيطان يصرخ كلما عرف الخسارة مثقلا بذنوبه ما سب أعداء ولكن عنده حجج تصون الحر عن محجوبه ارطي في yéen ñi aboneegul gul leen gaaw bu leen fàttee bés cloche notification bi ndax mooy tax ngeen di jot sunuy vidéo jàngeen ngeen jëf